mbokk internet yi ma ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak programme 5 TV ma ñëwaat ak yéen ci décortique Arrêt Mère Thiaba tey mu yemoo épisode 35 bi kat yi nag moom ba tey euh, li muy regretté mooy lan moo tax rek mu opposé wu woon ci ay parents wam ngir sëy ak ki nga xam ni moo di ndax tey ji xam na ni loolu jaru ko woon ndax tey am na yeddaange si ay kanamu waajuram mu mel ni foofu li ñu fay jàngalee rek mooy mbëggeel warul tax rek nga dogoo ak say euh, waajur ndax góor jaru ko rawatina góoru léegi yi ndax tey li Serif euh, def euh, kaykat yi rek euh, firnde la te mooy takkal ko ñaareel te waxu ko ko loolu day mel ni manque de respect ci moom mu mel ni kon ak ay parents wam ñoo dal ki nga xam ni moo di kat yi ndax dañu naan rek tere tere mu tëx bàyyil mu gis tey ji kat yi gis na lépp li nga xam ni ay euh, parents wam moom la ñu ko doon euh, bañal euh, waaye nag ki nga xam ni moo di monsieur Ndiaye moom dafa profité wu rek ci situation bi ngir rek mën a takk kat yi ndax depuis la premier jour bi mu ko gisee dafa am ci moom ay sentiment waaye mbenn recadré na ko xamal ko boppam bu baax a baax xamal ko ni ko kat yi ci buum la nekk te sax mbenn li mu bëgg mooy kat yi def Toch ak Sora ki nga xam ni moo di Bintu ndax Bintu dafa commencé di dox guddi euh, ñu mu mel ni nag comporté wu nañ ñoom comme frère ci sœur xale bu jigéen yaakaar naa euh, ay frère waruñu koo bàyyi muy génn guddi ndax euh, guddi nit bu baax sa waru koo génn waxantuma laa nag jigéen ndax nekkut loo xam ni rek lu baax la te lu ne mën na la caa fekk Mame Balla ak Mbeng nag tey gis nañu ñoom ñaar ñu ñëw ensemble génne ci taxi waaye nag mère Thiaba moom moo fa jaar ndax tay ji réussir na lo xamni kenn xalaatu ko won ba tax nak ñom tos eh, di leen rek eh, daldi kañu waye nak mam balla ak mbeng woné nañu ni gannaaw ay jamm te ñom tay ji ñoo ngi waat ci seen jamm nekk nañu te nag ñépp ñu doon wax tay ji dinañu rus eh, ba tax nak nit lepp lu di xew da nga wara def ndank andak dal ndax xamu ëlëk lan mo mëna am ndax tank ya la vie ya de l'espoir ñu jall ci pandoy pandoy nak mom def lu baax rek le bëgg motax sa saa su ci lay dox tay ji nak gunge na mbenn mu daldi dem marché jàppale ko dem ba këram waaye nag madame Ndoye da koo gis bi mu ko gisee nag mu daal di koy woo waaye Pa Ndoye xamal ni ki nga xam ni moo di eh, seen doom la yóbbu woon rek mu jàngi mu mel ni kon eh, tey ji eh, fen boobu Pa Ndoye daal di fen mën na koo yàqal lu baree bari ndax mën na tax rek ki nga xam ni moo di madame Ndoye am ay dut ci moom loolu nag tax na nit foo toll war nga di wax dëgg ndax bu ne ko woon maa ngi kër mbeen amaana benn problème du ca am waaye Pa moom ragal ragal rek ki nga xam ni réaction wu ki nga xam ni moo di madame moo tax mu daal di wax loolu waaye nag parfois nit mën ngaa rekk ñu wax lu dul dëgg ngir génn ci ba am ci ndam waaye tôt ou dina la topp te nag su boobaa lay gën a métti ba tax nag dëgg moom lu métti métti dañu ko war a wax rek ndax moom mooy li gën ñu jeexal ak mbenn mbenn nag fexe na rek ba delloo ji kat yi euh, këram ngir mu dellu jiwaat ci sëyam si jamono boo xam ne nag raje nañu ak kajja moom it muy génn kër gi ngir seeti ay euh, waajuram waaye nag mel na ni mère Thiaba ak Bintu ñoom dèjà wane nañu fi ñu féete ndax bët yi ñu xool kat rek ak fay bi ñu ko fay rek wane na ni euh, ñoom euh, seen yoon nekkatul ci ki nga xam ni moo di kat euh, yi mu mel ni kat jaa la ñu daal di jox bopp mbokkeen technot yi nañu leen topp rek ba xam fu waan leen di mujjee ki gëtëm waaye laata boobu wéyal leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàttee ba si cloche notification bi ndax ngeen di jot vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et à très bientôt incha allah